ci mbir mi est que yow gis-gis boobu mën nga ci ànd. bon man euh, dafa wax am solo mooy France euh, bi mbir mi jógee muy opposition pouvoir yëpp dañ ci ànd. Hmm. Euh, mais bu ñu garder comparaison bi rek gis nañ keroog tamit premier ministre France mu dem assemblée nationale. gars yi kii ko bu baax. saax saaxe mu wax ne même ci état d'urgence tamit assemblée nationale dafa war a def rôle di contrôler l'action de l'exécutif mais pour man président Macky Sall coow li yëpp aussi moom moo ko teg boppam parce que bu dee da nga def déclaration ne dangay ngay mettre en place un comité de pilotage boo xamante ni moom moo war a defal def lépp tey moo war a def lépp dans cette affaire la mais waroo jël ay décisions aussi ci ginnaaw boo tegagul la comité de pilotage bi nga waxoon ne da nga bëgg mu inclusif mm-hmm. parce que comme da nga jóg bi mbir mi jógee sénégalais yëpp ñëw adhéré parce que en temps normal euh, ay recette u état la ñuy jël di ci di ko jëfandikoo ak yeneen ak yeneen mais xam nga lii ba ci journalistes yi nga xamante ni sax seen seen doole bariwul dajale nañu un million de francs dem joxe ko sëñ Mountakha jóge fa la joxe deux cent millions ñi nga xamante ni mooy les couches li ku nekk jël sa dërëm joxe xam nga xaalis boobu nag saytu ko ak jaarale ko yoon ba nit ñi seen xel dal ci baaxoon na jamono ju nekk waaye jii la raw. léegi lan moo tax suspicion bi jóg xëy na mooy que président Macky Sall sa première sortie euh, su doon dafa dem ci professeur Seydi service de maladies infectieuses wala soit mu dem feneen comme ni koy yeneen chef de d'état yëpp defee ñu xam ne la gravité de leur commandé na mu mu gën a fësal loolu. waaye premier sortem dañ ko gis mu mel ni ku nekk ci campagne électorale aussi di def revue de troupe di xool ay tonn ceeb di dox moom kese ñu mettre ko en exergue donc loolu jox xeex bi aussi beneen cachet mel ni ñun dañoo nekk ci jamonoy famine wala jamonoy euh, insécurité alimentaire boo xamante ni toll dañ ci muy muy wane noonu daal ne am na butin de guerre xawma wala nan lañ koy tuddee boo xamante ni ñëw na alors que ci guerre sanitaire la ñu nekk guerre sanitaire da ngay xam lan ngay jox lan ngay jox dayo bi nga xamante ni moom moo gën a mag su defoon loolu ba pare leneen li commité de pilotage bi. gérer ko su boobaa dina gën a am coow li yëpp mën na cee bañ a jóg. leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy sur la forme c'est-à-dire pourquoi Mansour fay di def conférence de presse ministère de la santé. non fa la ñuy conférence presse c' à dire que ñi ciy def c' est à dire que ñiy def bu fekkoon ne comité de pilotage am na. ñu wutal ko benn caractère général et impersonnel su boobaa bu ñu ko defee foofu dina gën a nit ñi seen xel dina ci gën a dal ñu xam ne lii ak peut-être une autorité indépendante su boobaa dinañ xam ne lii wala une personnalité indépendante dinañ xam ne lii kat euh, euh, amul benn connotation politique ak yooyu parce que wax nañ ko encore une fois pour man euh, non seulement la personne de Mansour Faye pour man ça dérange te dafay créer suspicion. Mhm. mais déjà kenn ministère bi mu yor sax dafa dafa pour dama koy wax depuis longtemps c'est-à-dire que. développement communautaire nga am un ministre en charge des collectivités locales nga ñëw ne équité sociale mais équité sociale c'est un idéal qui est poursuivi par tous les départements ministériels ça peut pas être un ministère mm-hmm. pour man déjà sur la forme c'est un problème on a créé quelque chose pour quelqu'un boo xamante ni xamuñu à quelle fin mm-hmm. et aujourd'hui on l'a vu on a vu son euh, euh, ni mu ni mu amee problème tey comment est-ce que tu peux dire à un journaliste soo ma laajaatee loolu ma porter la plainte mm-hmm. mel ni laaj léegi dañ koy tere ci réew mi pour man c'est inadmissible et que loolu dañ ko war a arrêter léegi état d'urgence tamit c'est pas une porte ouverte pour ngay jël bëgg a bëgg a sappe pour nga suspendre yenn droit yi leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax Abdoulaye Der mooy ana commissariat bi nga xamante ni ñoom ñoo yor la sécurité alimentaire mhm. le ministre de la santé et de l'action sociale la ana waa action sociale mhm. ana ñii nga xamante ni dañu am expérience. doon nekk ci kaw gi. di xool xam ñii seen base de données tey jii ñu ci sukkandikoo mettre leen ak contribution mën nañoo dem sans tambour ni trompette. mais loxo bu tàmm gudd aussi su bëggee xëy na day gàtt day poser problème. pourquoi suspicion am ci ne est-ce que niñ joxe marché yi baax na. c'est parce que dañoo am habitude di joxe marché yoo xamante ni ñu ko doon joxe yàllaa xam. est-ce que ki ñu ko jox moom lañ ko war a jox. loolu tamit légitimement et je persiste aussi que effectivement ki ñu jëndee li ñuy li nit ñi di poser question mooy pourquoi l'état du Sénégal jubalul ci ki nga xamante ni moom moo am le stock suffisant muy Dreyfus bi mu wax jënd foofu c'est une multinationale peut-être que am na ci yoo xamante ni bu ko defee mën na da am na ñu mën a dal ci kawam parce que ay orga organe de contrôle yoo xamante ni droit international mën na mën na dal ci kawam peut-être que loolu moo tax keneen dem jënd ci moom jaayet état du Sénégal. mais quoi qu'il en soit li ma jàpp mooy même bu fekkee ne un franc la même bu fekkee ne dix franc la mënuñu nangu mukk li Idrissa Seck doon wax te d'accorduma ci ak moom ne ndox mi fay lakk gi kenn du ko segg ak yooyu <laughs> foog ñu segg ko nag waaw ah. ah, foog ñu segg ko parce que xam nga lu tax dañuy bañ mu am ay précédents dangereux te li tax ñu war ko segg mooy justement parce que ça a sabordé presque tout le travail qui a été fait depuis le ah début léegi le débat s'est installé ñun installé wuñ ko ah pourquoi bu fekkee ne débat bi ñorul woon xom mais lan moo tax Mansour Faye def conférence de presse li tax mu def conférence de presse moom xam na ko li tax mu ñàkk tooy xepp moom xam na ko justement parce que. puis salle bi amoon na clim. parce que les parce que les les les na clim. parce que parce que les craintes ba pare Abdoulaye de parce que les craintes sont légitimes. parce que ñiy wax yëpp ne jarul saytu. Mm. ñooñu ndimbali concerné wu leen de ñiy joxe ndimbal mi yëpp concerné wu leen. c'est-à-dire que on ne aussi dans un pays boo xamante ni ñiy joxe ndimbal yépp ñoom concerné wu la ñoom waruñu cee bokk ñoom loolu tam c'est un problème léegi nag les chiffres yi ñu doon wax autosuffisance en riz sëriñ bi fay léegi li mu wax dafa am solo loolu mooy la réalité du Sénégal léegi est-ce que bàyyi nañ léegi taux de croissance léegi est que bàyyi nañ waxu émergence coronavirus nous ramène à la dure réalité du Sénégal. bi ñu doon wax ñu naan ñu ay affaire partisanerie la justement du partisanerie xëy na nu on a la chance de faire le pays de tati le pouls. soo génnee dakaar gi wala bala ngay génn dakaar fii nga am problème nga gis nit ñi ni ñuy dundee nga dem foo xamante ni gis nit ñi accès à l'eau accès universel li ñuy wax nii Mame Boye Diao xam na ci dara il vient de Kolda la réalité mooy tey nit ñi dañ leen di jox lu ñu saabu saabu bu ñu sangoo tous les hommes politiques sont sur le terrain pour maye saabu on est dans un pays boo xam les gens amuñu saabu et après on vient nous dire que nit ñi tey jii kan moo ci am problème mu saabu ci ñun ñi mais am na ñoo xam dañuy dem di leen may saabu ba pare di ko di ko photo di ko wane ci internet bi c'est ça la dure réalité de la vie madaar amuñu ko madaar c'est ça le Sénégal hmm. donc pour man soyons beaucoup plus humbles gouverner générosité la na ñu ci def yërmande nañu bàyyi ñi am post am domba tànk tey foog ne ñoom ñoo am le monopole de la vérité